maanaam giñ ak nisr nag ci lay bëgg a wax nee na ku bëgg a giñ moom nga giñ ci turu yàlla mbaa ci melow yàlla waaye bul giñ ci leneen lu dara màgg-màgg ni ki yonante bi mbaa kaaba gi mbaa leneen dañuy aaye ku ci giñ kon lu dara màgg-màgg rek te bokkul ci turu yàlla yi ak ay meloom doo ca sañ a waat ni ki waat ci yonante bi wala kaaba gi dañ koy aaye bokkee dafa maanaam daal waat ci lu mel yonante bi ak mbaa kaaba gi ëpp naa def ndax bu ca waatee loo xam dëgg la def na luñ sit bu ca waatee loo xam wóor na ko du dëgg nag moom mën naan sax ñu jàppee ko kéefër ndax day mel ne ku yab kaaba gi wéggu ko ak ku yab yonante bi kon daal na moytoo waat ci lu bokkut ak yàlla rawante na waat lu amut ëpp naa def ba tey dañuy aaye waat ci sa baay mbaa sa maam ndax yonent bi nee woon inna allaha yanhaakum an taxlifoo bi abaikum yàlla du leen di aaye waat ci seeni baay kon nag kenn waat ci baayam mbaa maam mbaa lu koy nuroo yonent bi daa waxal ne laa taxlifuu bi talaaqi wala bil ataaqi fa innahuma min aymaanil fusaaq du leen waat ci fase mbaa goreel ndax yooyu yaar dañoo bokk ci gi ñi kàccoor yi fase moom su mënta ñàkk rek ku yebu def ko ne moom sax dagan na waaye yàlla bëgg ko da koo bañ goreel ab jaam nag jamonoy jaam amee moom daa bokk ci ñu sopp te mbari tuyaaba lool waaye nag li yonent bi aaye mooy jekki di waat ci fase mbaa goreel ni ki jekki di wax naa tey daal kenn mënumaa tax wax nangam mbaa waat naa ci yàlla kenn mënumaa def loo nangam su ma waxee nangam mbaa su ma defee nangam rek saa jaam bi gore na wala sama soxna si fase na lu mel noonu yonent bi da ko aaye woon li téere bi wax nag mooy ku ko def àttekat bi war laa yar ndax képp ku toggoo ak mooy rek te téere bi maanaam te bind ni ci téere yi lañ la ci war a def kon àttekat ba moo war a seet la mu defee ne yàlla na ca mu def la ko lu may nag dangaa umpale rek moo tax nga def loola waaye umpale rek ku waral su boobaa kon ne la koy aaya xamal ne la loolu waris koo def waaye kenn du la yaar daa am na ñu wax ne ku waat ci fase mbaa goreel duñ jekki-jekki yar ko lu may da koo def aw xewet di ko def ak defaat xam ne kon def ko benn yoon rek du tax ñu yar ko waaye ni téere bi waxee nag moom ku ko def rek ñu daal koy war a yar seetee mooy wax insha allahu gannaaw ba nga waatee loolu nag nee na ku waat ci lu mel ne fase gi nga weesu léegi mbaa goreel moom boo ca boolee insha allahu itam du tax mu am njariñ ni ki bu ne woon waat naa ne tey jii balaa jant beesoo danaa saraxe ab junni su ma ko deful rek sama soxna fase na mbaa sama jaam ba gore na teg ca nag insha allahu bu soobee yàlla doonte insha allahu jëm moo ko jublu it am na ci yéen it du tax mu am ci njariñ bu jant bi soxee te saraxewul junni bi rek bu dee soxna saa mu fase bu dee jaam baa mu gore kon seetee balaa am njariñ rek la mu waat doon loo xam ne alamaan dong moo ca waroon waaye aju ko ci fase mbaa goreel mbaa yu demee noonu loolu moom insha allahu ba muy seetee ga du ci am njariñ kafaara mooy alamaan bi nga xam ne moom la ñuy teg ku waat te la mu waat teggiku mu ne moom nag ku waat ci turu yàlla mbaa ci melow yàlla rek ba noppi loola teggiku moom rek moom la ñuy teg alamaan waaye ku waat ci leneen lu mu rëy rëy rëy ni ki kaaba gi mbaa yonante itam du tax mu ngin lu fasu moom bu yàlla dogal loolu tebbi ko itam du tax alamaan war ko ca tuub rek tey jéglu la war a def seetee mooy wax insha allah soo waatee ba noppi teg ci insha allah joo xam ne nga caa jublu ne li may waat kat bu soobee yàlla laa wax xam da nga caa jublu bu dee da nga ko wax ngir barkeel ndax mën naa nga wax insha allah ngir barkeel dong te teewul nga dogu ci la nga wax mën naa itam nga tàmm wax insha allah waaye soo waatee ba noppi teg ci ne bu soobee yàlla day insha allah bu doon teggi ko itam dara du la ci war ndax dañuy jàpp ne kon dara suubu yàlla te bu soobee yàlla nga waxoon waaye boo waxee insha allah ngir sawlaa bi moo ko tàmm rek wala ngir barkeelu rek waaye jubluwoo ko feccee nit li kon bu ngi ne teggi ko rek alamaan daal lay wax day day day aajowoo bi nga waatee nga teg ci insha allah mu sës ca boo waatee ab diir loolu incha allah dañuy jàpp ne kon da ngaa réccu mooy da ngaa jàpp li nga waatoon doo ko mën rek nga doon cee teg incha allah kon day aajowoo nga teg incha allah bala ngaa noppi moo tax mën a xam la an yas mu tax lu may nag nga sëqat jaarale fi mbaa leneen dogandoo la ba mënu ko caa sësale te saas nga la ko ci sësale moom dana baax waaye boo yeexee incha allahu ci rek moom doom jëriñ nee na waat ci yàlla man nga ne ñeenti xaaj la am na yaar yoo xam ne moom la nga wax bu deñee da nga war a def alamaan am yaar yoo xam ne la nga wax bu tebbi ko itam alamaan du ca wax yaari waat yi moom boo waatee ne nangam du ma ko def ni ki waat naan tey ji du ma jëw loolu mooy du ma def mbaa nga waat naa def ni ki nga waat ne tey ji balaa jant bi sos naa siyaar ji tuubaa loolu danaa def la yooyu yaar jàppal lu ci tebbi ko rek moom boo ko waatee ci yàlla lu ci tebbi ko rek alamaan du war la daañu wax am yaari ngi yoo xam ne kafaar du ci am nee na benn bi nga xam ne moom alamaan waru ci mooy laxul yamiin mooy nga waat loo xam ne dëgër bopp ñeme yàlla taxul nga waat ko dangaa defoon ne loolu dong nga mën a am ni ki ab dongoom réeru moom mi jàngal alxuraan nga waat ci yàlla ne ko dong baa gis démb ca marché Touba ba sa dong ba dawoo na waat ko ci yàlla fekk na booba na nga ko gisee woon daal moom noonu dong nga mën a jàpp waaye gannaaw bañ ko toppee ba topp ko itam ndekete yoo kat du woon moom loolu moom laxul yamin la mooy waat loo xam ne ngaa defee ni noonu rek la demee dogu ca waat ko ci yàlla gannaaw bañ ko toppee demewul noona waaye dëgër bopp ba ñeme yàlla taxula woon a waat ca loola ngaa defoon noonu rek mën a am loolu kafaara waru ca te amoo ca bàkkaar ngiñ ba ca des te nga xam ne kafaara waru ca mooy mu waat loo xam ne wóor na ko ne amut mel ne mu taxaw ci kanam yoon waat yàlla ne diw mi amee lu ma ko nangam te fekk na ameel na ko ko mbaam mu waat ci kanam yoon ne diw mi ameel na ma nangam te fekk wóor na ko ne diw mi ameelu ko dara loolu moom dafa rëy lool lool wala boog la muy waat ci yàlla kat da koy sikki sàkk dong wóoru ko am naam amut waaw kon waat ci yàlla loo xam ne wóor na ko ne amut ak waat ci yàlla loo xam da koy sikki sàkk dong foo ko fekk alamaan du ca war waaye dafa rëy rëyaay boo xam ne ëpp na alamaan faaw rek moom daa war a tuub tuub gu sell rëcc ko te dogo ci bañ koo defati mukk mukk bañ a defati lu nu mel bokk na ci loolu nag nga waatal nit ne ko danaa nangam te fekk li nga fas ci sa xol mooy loolu doo ko def waaw waat ci danaa def nangam baa duma def nangam nga waatul ko nit fekk na booba la nga fas taxal ba mooy loola moom da nga ko wax ni ci làmmiñ waaye doo ko def ah loolu bokk na ci bu waatee ne diw mii ameel na ma nàngam te fekk diw ameelu ko ko moom day doy waar lool ndax xam nga waatan sax ne démb gis naa sa baay te mu wóor ko démb gisu ko ak lu demee noonu moo xaw a tane ndax lii moom da ci boole fabaale alali jaambur ba tax sax nee nañ addis ba nee na man iqtataha maa lamri in muslimin bi yaminihi harrama allahu alayhi aljannata wa awjaba lahu nnaar qila ya rasul allahi wa in bi cheyin yasir qaala wa in siwakan rawahu lxaakim ba tey wa qaala sal allahu alayhi wa alihi wa sallam man xalafa ala maa limri in muslimin bi xayri xaqihi laqiya llaha wa huwa alayhi xadbaan kooku rawaaxul buxaari yi yonent bi ne ku fexe ba foqor ci alali jullit ci kaw waat dong ci kaw nit rek xamal ne ku def loolu yàlla araamal na ci moom àjjana waral ci moom sawara ñu yonent bi waa xanaa bu dee lu néew néew moom loolu du ko ca dal mu ne doonte ab socc la sax doonte ab socc la sax wax na feneen ne ku waat ba nangu alal yi jullit tegoo ko fenn si booy te fekk yàlla day fekk yàlla mere la moo tax lu mel noonu daal mat naa moytu lool lool ba tey nag ñu seetlu ne li mu wax ne ndaxul yem yi ni neenu ngiñ ak ngiñ li ngay door a daaneel léegi muy waat ci loo xam ne wóor na ko ne amut mbaa lu muy sikki sàkka ñu wax ne alamaan waru ca aajo woon a teqale su fekkee ne dafa nekk naxul yamin te aju ci lu wéy ni ki na nga misaaloon ci gis naa sa dong ko démb ñu seet ko demewul noonu mbaa lu teew bu dee yooyu yaar moom tam yi loxul yamin alamaan du ca war waaye bu fekkoon ne lii ñëw la te ñëwagut moom bu demee ba teggi ko alamaan war ci ni ki diw ameel na bor borom bitig bii nga waatal borom bitig bi ne ko diw moom xam naa ne bis de mu la wax dana la fay fekk la nga xam ci diw moomu ci kóolute ak it jekk gum jekku fay nga rek moo tax nga waatal borom bitig bi ne ko diw mii bis boobu mu la wax dana la ca fay nga xam ni dëgër bopp mbaa ñeme yàlla dangaa jàpp ni loolu dong nga mën a am leneen mënta am lu mel noonu bu demee ba tebbi ko faaw alamaan war la ca ndax daa fekk loolu muy luy ñëw ca kanam kon laxul yamin bu ajoo ci lu wéy wala lu teew alamaan du ca war waaye nag bu ajoo ci luy dëgmal si moom seeni ba tebbi ko alamaan war ca léegi ñu tudde al yaminu al xamoosu mooy waat ci loo xam ne wóor na ko ni amut mbaa lu muy sikk sàkk moom itam bu ajoo ci lu wéy ba noppi alamaan du ca war waaye moom bu ajoo ci lu teew a teew mbaa luy dëgmal si alamaan war ca am na ku ko boole ci wenn way daan wax ne kafir xamuusan bila maadin takunu kaza lahun bi mustaqbilin wala bi mustaqbalin la xayru fam tasila neen alamaan bi lay war nag boo ngiñee tam tebbi ko bëcc njëkk mooy lele fukki miskin ngay leel kenn ku ci ne am mudd mudd nag boo ko jàppee ak liibar mu baax daa wax ni nag bu dee ci ñu nekk ci yoonu Maalik moom buy sañoon buy def alamaan bi du yem rek ci joxe mudd ab liibar waaye day joxe liibar ak genn wàll liibar wala liibar ak ceeru liibar ceeru liibar mooy boo defee liibar ñetti xaaj nag nga jël benn xaaj ba dolli ko ci ab liibar loolu mooy liibar ceer mu ne nag dañuy seet ba xam yooyu jamono dund dafa seer wala dafa yomb bu dund seeree mu joxe la gën a yomb te mooy liibar ak ceeru liibar bu dund yombee nag mu joxe la ëpp te mooy liibar ak genn wàll liibar boo fexee ba jox kenn ku ne ab liibar rek sa jaan wàcc moo xam yooyu jamono nag dund daa jafe wala dund daa yomb lu ca dara moom la ñu waxoon yokk ca genn wàll liibar mbaa ceeru liibar daa gën rek waaye boo fexee ba jox kenn ku ne ab liibar rek sa jaan wàcc na bu la neexee nga bàyyi lele gi te jox leen ak col te ngay jox kenn ku ne bi góor baa jigéen lam mën a jullee bu dee góor boo ko joxee mbubu rek mu baax waaye bu dee jigéen faaw nga jox ko mbubu ak mu reex bu dee jamono yi jaam amee ba tey boo giñee tam tebbiku mën ngaa goreelu jaam muy sa alamaan yett yow na ngay tàmbali ci ñax def lele gi ak joxe koddaay bi ak goreel jaam bi yett yee nag boo ko tëlee rek waaw kay ngay door a sañ a woor na ñetti fan muy sa alamaan ñetti fan yi dañoo sopp tegale waaye boo ko teqalee bañ leen susalee bis ko tee doy boo mënee kenn ci yettee daal moom doo sañ a woor ñetti fan yi muy salamaan boo tëlee nag yettee yëpp nag waaw kay kon salamaan mooy woor ñetti fan daa wax ne su waatee tam wóor ko ne li mu waat moom du ko mën faaw day tebbi ko rek bu ko neexee daal di génne alamaan ba fa saasa waaye nag mu xaar ba mu wóor ko ne la mu waatoon tebbiku na mu door def alamaan ba daal moom la ñu gën a taamu nun ñu nekk ci yoonu Malick te sax bu fekkee la mu waat te caa ajan ne bu tebbi ko warlu naa te loolee mu warlu ràññeelu ko su gaawee def loolee mu warlu itam du tee rek saa yu tebbi ko loola waraat ko nit ki mu ne waat naa ci yàlla tey duma nangam li ma wax nag bu deñee danaa saraxe te ràññeelu la muy saraxe saa yu gaawee sarax itam ne xam naa li ma wax day dañ su tee saa yu demee ba la mu waxan dañ rek mu war a saraxewaat kon lu demee noonu moom gaawee ga du ci am njëriñ